question buñ ko laaj ci ay preuve El Hadj maître El Hadj Diouf day génn document parce que je dis à l'opinion que Bah Diakhaté il a une documentation boo xamante ni ay preuve la par rapport à ces déclarations preuve bu këru Ousmane Sonko yi ñu doon yi ñu ko toppee parce que loolu aussi ci ci la mooy mooy mooy mooy diffusion de fausse nouvelle boobu mooy kër gi ma xam ne dañu waxoon daf koy jaay mu génne document yi wane ko génne ko El Hadj moo ko génne jox ko juge juge bi classé ko mu waxaat problème à la maison de la président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye nga xam ni 2018 la ko jaay maître El Hadji teg ko maintenant nag ñu dugg ci la question de l'homosexualité ba jaxate ak fulla ak fayda biñ ko xamee mu taxaw ni Ousmane Sonko laa la ak nee leen ko mu ñëw taxaw fii kay ñu àtte du dëgg mm-hmm. donc foofu la ñu tànn ci le procureur de la République tey amuñu benn issue boo xamante ni tribunal bi am na ko lu dul libéré Bah Diakhaté parce que lépp lañ ko toppee woon ci ci juge bi tey génne na génne na preuve ba teg ci sax ni imaam Ndaw nañ ko bàyyi mu ñibbi parce que samay wax la wax. loolu la wax ci Ndaw nañ ko bàyyi mu ñibbi parce que samay wax la wax xam nga kooku ragalul li muy wax. tiitul ci li muy wax mi ngi defendre sax ki mu àndal moo tax ma leen wax sànq su ne su nekkee yoon dañ koo wax ci tribunal bi tey Bah Diakhaté du fi génn dina fi génn dem ñibbi mais xam nañ ni su fiy génn du fi ñibbi tamit sursis lañ koy dóor lu mu tuuti tuuti six mois xam nga lu tax si boobu pour tere ko mu wax pour tere ko mu jël kàddoom wax ak askanu Sénégal wax leen li xew. mais d'après information yi nga xam ne Bah génn. déedéet. wallaahi ak waxtu yàlla bi billaahi wallaahi taalaay Bah Diakhaté reculé wul d'un iota ci biir salle jéggaluwul tey waxul ni waxuma ko ba musul wax nit li may wax de waxuma ko c'est pas vrai lépp luñ ko laaj génn naay preuve nee naa la fi mu ne nii ak moment bii may wax yow parce que dinaa delluwaat ci biir procureur moo nekk ci difficulté parce que moo bëgg nekk l'avocat du diable d'accord lu tukkee ci imam euh, tam dégg nañ ni imaam euh, dafa mel ni kaddu yi mu waxoon mu ngi ci génn. xam nga imaam ba mu taxawee la mu wax mooy kaddu yi mu wax ca Baajoxate la ko jëlee te ñun ñëpp xam nañ ni kaddu yi mu wax ci Baajoxate la ko ba mu ko waxee fii ni mu ko waxee fii noonu la ko waxee devant devant devant les forces de défense et sécurité li mu wax fii moom la wax fee moo tax Baajoxate ne kii ay kaddoom sama kàddu la reprendre. nañ ko bàyyi te moom tam jéggaluwul benn yoon. mu jéggal mu ci am. jéggal amul ay maa ngi jéggalu ci biir salle bi génnu fa du Bah Diakhaté du Imam Diakhaté même ci audition bi dégg nañ ni suñ confrère yi génnee nañ ni non dama ne ci biir audition ba la ko Bah Diakhaté commencé défendre asamalaak parce que fa la ci biir audition ba la ko Bah la Bah ne kii samay kàddu la wax kon jàpp nga ni suñu naataangoo yi lu ñu jot a fësal ci audition imam dama ne loolu li may wax askanu Sénégal mooy li imam wax ci biir saal bi taxawul mukk ne damay jéggalu dafa ne li ma wax Bah Diakhaté kàddu Bah Diakhaté la loolu mooy information bi valable ca audition ba nag puisque fekkewu ma woon audition mënu ma ci wax mais la ma fekke ci biir saal bi mhm. mooy imam bi dafa taxaw ne li ma wax kàddu Bah Diakhaté la te mi ngi nii taxaw moo tax Bah Diakhaté ba mu jëlee kàddu daf leen ne bàyyi leen imam mujj bi parce que li ma wax maa ko wax suñu delluwaatee mhm. ma génnaat tamit lépp lu ma fa jëlee rek dinaa ko ñëw baaxee askan bi balaa ñu nit ñi nag nekk di wax leneen ak leneen. parce que gis nga ci biir salle bi wallaahi calme plat moo fa ne ak confiance calme plat. mais ñu ngi am ay information yu tukkee ci suñu naataangoo yi nekk ci biir. dama ne li ma wax mooy calme plat moo fa ne lépp luy génn comme information comme preuve maître El Hadj moo koy génn ci document am teg keneen du ko génne parce que preuve yi baa jaxate yor. ca audition ba la ko yëkkati jox ko maître El Hadj Diouf te toll na ci toll na ci sac au dos une documentation bien fournie. ok mais ni muy door def waaw. mais yéen discours wax euh, bu ngeen xoolee ñoom euh, ñoo fi nekkoon si jamonoy Macky Sall di atte ñoom Ousmane Sonko parce ñoo fi nekkaat lu tax ngeen di wax ne justice bi tey dañoo jeng. déet waxuma justice dafa jeng xam nga man mënu maa wax di justice dafa jeex l'avocat du diable bi nga wax j'ai dit le procureur mhm. li mu wax di ko défendre Ousmane Sonko ñun ñëpp dégg nañ ko ñun ñëpp dégg nañ li Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko ba muy wax waxi casus casus belli c'est par rapport à la démarche ak waxin ba ba muy wax waxi casus belli c'est pas pour faire la guerre dafa wax ni homosexualité dañ ko accepté accepté wuñu ko ci réew bi te loolu wax na dëgg mais tolérance bi tamit amu fi mais loolu la procureur bëgg défendre ñun nag waxuñu ci loolu mais li ma wax mooy tey la ñuy xam ndax suñu justice dafa indépendant u pas tey mais man waxuma ni procureur dafa tey nangam mais li ma wax mooy ah dafa waane rek mais mënuloon waruloon waruloon autosaisir sur un dossier boo xamante ni ça ne lui concerne pas. tey jii en tant que kenn ki nga xam ne bokkoon nga ci gouvernement bi fi nekkoon maanaam suñu nee bokk nga mooy euh, ñi ànd ak Macky Sall jamono boobu noonu opposition dañu doon wax ni justice su Macky Sall tey nag de l'autre côté itam. non waxuma non non non man du ma mës a wax ni justice su Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour lan na koy wax justice Bassirou Diomaye fay Faye moomu ko Ousmane Sonko ma ko parce que politiciens yu bon yi ñoo naan ñoo doon taxaw naan Macky Sall la jàpp. Mhm. du dëgg nee naa leen su ma neexee ma ne leen Bah Diakhaté mii otage Ousmane Sonko la ak ak ak ak ak ak Bassirou wala. Mhm. mais je dis toujours force restera à la loi. parce que man loolu laa gëm et je pense que le droit sera dit ici man nag bokkuma ci ñi ñi nga xam dañoo nekk ci reniement de les recordman le recordman des reniements c'est ce gouvernement là moi je suis pas dans le remaniement li ma doon reniement li ma doon défendre démb laay défendre tey ba tey laissons la justice faire son travail mais force restera à la justice jërëjëf Adama Adama di ko jaajëfal bu baax a baax euh, nekk Adama à chaque parce que lii mooy euh, li nga ci euh, information euh, jot nga dégganteeg wala sax jot nga seetaan li nga xam ne mooy procès bi déroulement bi kaddu yi nga xam ne imaam njëkk na ko yëkkati lan la. man tur bi ak sant bi d'abord. waaw imaam Daouda Camara. Mhm. coordonnateur collectif. ànd taxawu imaam Cheikh Tidiane Ndaw waaw maa ngi fas yéene tontu seen laaj yi mhm. waaw di santaat yàlla bu baax ndax euh, imaam ni nga xam ne moom lañ doon waxtaan ci suba ak yéen muy imaam bu dellu si li mu doon jàngal nit ñi ñu gis ko ci moom muy dëgg muy gëm la ngay def mu nekk jëmm ci yow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 688 25 05 wala si 347 596 20 36 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si ikfa online arroba gmail point com ikfa daal yéex naa ñëw.